di wax rek euh, loo xamante ne ci lañ jublu muy loo xamante ne mooy le 24 février bii ñu jëm ñu bokk ci parti bu ñuy wax alliance pour la république jiite mouvement bu ñuy wax mouvement citoyen républicain gindi askan wi membre daje. ñu nekk di def ay activités pour falaat suñu président président de la république Macky Sall ci Sénégal gi yëpp mouvement bi fu ñu nekk ñi ngi def seeni activité waaye rawatina fii ci Touba kon tey li ma leen di dénk mooy bu ñu demee bala 23 ci guddi kenn ku nekk ni nga farataale reer ak julli fajar bala nga koy def nga làmb sa carte d'identité ba mu leer na mi ngi ci sa ngeganaay nga doo ko tëdd kenn ku ci nekk it xàmmee bulletin bi nga xamante ne moom la ñu am mu di bulletin bu marron bi am fas wi nga xamante ne ni ma koy faral di waxee suuf dafa marron fas dafa am coloré kon yaakaar naa ne loolu yomb naa xammee bu bis ba le 23 ci guddi ngeen def loolu ma leen wax ñu falaat président de la république dès le premier tour. man yaakaar naa ne sama slogan mooy Touba wot le président de la république à 70 pour cent man 70 pour cent yi li ma ci sukkandiku mooy dama gis fi ñu jaar dama gis li doon xew ci jamono te xewut fii ci Touba te it ma gis ay réalisation yoo xamante ne. ni ma ko gisee laa jàpp ne ni la askan wi noonu lañ ko gisee te olof dafay faral di wax ne bët rëy na lool waaye lu tuuti moo koy fat loolu autoroute Ila Touba bokk ci assainissement bokk ci réfection hôpital Matlaboul Fawzayni bokk ci conduite yu mag yi ñu ci fi def bu yàggul bokk ci assainissement bi ci Touba euh, euh, bokk ci hôpital bu bees bi bokk ci euh, bourse de sécurité familiale bokk ci couverture maladie universelle bokk ci loolu lépp ma gëm ne ni ma ko gisee ba xamante ne war nañ ci falaat président de la république fii ci Touba moo tax ma rafet njort ci ne 70 pour cent yëpp danañ woteel président de la république Macky Sall. suñu maam wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk. am nga maam ji toll ne Ablaye Wade sa kër. waaye bu jaayoon sa kër. tey boo ñëwee danga nga koy xàcc ndax njaay ma du compte ndax lan moo ko waral dañu ne ku lu mu def. ak kam koy jëfal kam koy jëfanteel loolu walaa balut kon loolu muy wax ñun mënuñu ko walaa balal kon loolu waxi mag la rek mag moo xamante ne naag na incha allahu rabbi bu ñu gañee dès le premier tour danañ ko loolu tubaab yi wax naan italiens yi di ko wax casa repos mu di maison de retraite danañ ko ci tabaxal boo xamante ne dana muccute ay fii ci Kébémer gi mu cosaanoo sagale ko non xam nga nit booy wax dangay wax ak say nawle man dama gëm ne mu def débat public ak débat candidat yooyu nga xamante ne tey ñii ay mer gemb lañ ñii wut nañ mënuñu koo am ñii jéem nañ tële kon buy wax askan wi fan lay waxal waaye du wax ak ñoo xamante ne tey mën naa ne mëtuñu candidat ci benn candidat bi rek laa yem man bu damay ñaan président de la république ci benn candidat bi ñu di ko wax Madické Niang defoon na benn show bu mag a mag fii ci boulevard bu Mbacké bu fekkente ne da koy fayu maa ngi ñaan président mu fayal ñu ko mu ñëw defal ñu fi benn show comme show bi ni ko xale yi seetaane ji woon mu defalaat ñu show bi fii kooku ñun jàppe ko candidat dañ koy jàppe musicien boo xamante ne dafa raté di def répétition commencé ko fii ci Mbacké man ci candidat boobu rek laa yem